ci Leewtoo ñoo ngi leen di nuyu baat ba baax baax fi ñu leen daan nuyoo den ñaanal jàmm di ko sàkku ci yenn tey nag ñu ñëw fii ci Mbour vingtième édition la drapeau chef de l'État tey di vendredi di commencement bi nga xam ne dañuy commencer di def pesage mu ànd fekk équipe bu dynamique buy ànd ak yàgg maar ki nga xam ne moom mooy Ousmane Ndey Kumba Fall Momo ak ki nga xam ne moom mooy Rose fleur waaye nuyu équipe Leewtoo bi yëpp mbokki internet yi dañu leen di jëlee lépp li fi am jox leen ko à temps réel fii rek la Leewtoo TV encore une fois. Babacar affaire yi nu waaw mais Babacar affaire yi dañoo jaaxal gars yi dañoo bëgg a xam lan la. bon en dañuy contrôler pois yi xam nga dafa am euh, catégorie de pois donc euh, su yokkee sax un gramme dañ naan euh, mbër bi mu dem demaat defaraat mu wàññi waaw gramme boobu donc loolu la donc comme ci wàllu. Euh, euh, partie technique bi lañu nekk partie technique bi moom pesé la tirage au sor avant boobu nag y'a le contrôle médical. bu ëppee ñu wàññi léegi bu fekkee dafa ndaw. waa su fekkee ndaw ndaw mun nañ koo accepter ci catégorie de poids bi ah parce que am na benn poids euh, de base ak poids maximum donc su nekkee nag ci poids maximum bi mu xaw wàññi tuuti rek. dañ koy ba dañ koy accepté. drapeau chef de l'État dafa nekk un événement national nekk lu rëy rëy nga xam ni fukki région ak ñeenti Sénégal yëpp ñoo fiy daje donc dafay laaj ñu bàyyi ñu woyofal tuuti liggéey bi fële pour ñëw jàpp ci manifestation bi ndax mu aw yoon loolu mooy suñu teewaay fii bon en plus de sa aussi tamit euh, ci côté arbitrage bon laa xaw bàyyi tuuti. mais ci wàllu direction technique Abdou Badji mi nga xam ne mooy directeur technique bi man adjoint am laa donc euh, loolu mooy tax nag euh, secrétariat technique bi ci sama loxo lay ne waaw bu ñu paree fii ak arbitre ba pare lépp luy feuille de match loo xamee ni moom la ñuy itteewoo di ko defee ci euh, fële compétition bi bon ñun ñoo koy defar de ce fait que combat yi mën a aw yoon waaw actuellement nii bon ñu ngi woon ci visite médical bi am na équipe yoo xam ne ni jàll nañu ba pare. ñi jàllul daal euh, Kaffrine mooy des ak euh, euh, Ziguinchor ak Sédhiou échappé mais ñeneen yeneen région yëpp jàll nañu bu ñu foofu ci visite médicale bi lutteurs yi nga xam ne dañu apte amuñu problème mu tension amuñu benn problème amuñu problème de poids ñu ñëw fii arbitre yi ñoom ñoo koy gérer ku ci mel ni Babacar moom xam nga moom mooy président commission lutte sans frappe te tey jii championnat bi nga xamee ni mooy lutte traditionnelle bi drapeau chef de l'état bi ci lut simple la mais surtout connotation lutte africaine di ci xaw a euh, nekk spécificité bi mooy jàpp ngemb du am comme boo demee Adrien Senghor mën nañ jàpp ngemb mais fii kenn du jàpp ngemb boo demee Adrien Senghor bëre simple bi foofu juróomi minute la ñaari yoon mais fii ñetti minute la waaw loolu mooy différence bi fee dañuy noppaliku mën nañu noppaliku benn minute fii tamit benn minute la ñuy noppaliku waaw léegi arbitre yi aussi tamit dañuy toog ci ay chaise tandis que fële benn arbitre rek mooy jël benn combat mais fii ñetti arbitre la ñuy doon ñaar ñu toog ci ay chaise kenn ki nekk ci biir soo seetloo seeni loxo dañuy takk ay ay euh, poignée kii wu poignée yooyu daal waaw donc danañu yore benn ci seen bu xonq ci loxo càmmooñ bi ak beneen boo xamee ni bu bleu ci loxo bi nga xamee ni mooy ndeyjoor bi voilà mbër yi tamit dinañu am spécificité parce que ci loolu da ngay gis ne dañu am ay ceinture yoo xam ne bii dafa bleu bii dafa rouge maanaam bii dafa xonq bii dafa bleu loolu tamit ab njàngat la loolu pour wane ne arbitre bi bu ki daan ñoom drapeau bu bleu ba la ñuy yëkkati wala bu xonq bi déjà que arbitre bu taxawee ki nga xamee ni moom moo daan bu dee bu bleu la du koy féete ci côté loxo bi nga xamee ni moo am euh, poignet bi mu seen poignet bu bleu bi mu yëkkati ko. ça fait que mu yomb ci moom donc noonu lay mbir mi demee euh, donc comme ni ma ko waxee ñoom bu ñu paree rek automatiquement maag maalik Malick mi ngi jël numéro yi ñu ngi jël catégorie de pois yi suñ ci paree nii nag léegi après dafa amaat beneen phase parce que lii ci en individuel par catégorie de pois la déjà vu moom la ñu doon def tirage bi fii mais bu dee par équipe la nag maintenant c'est en fonction ci rang yi nit ñi amoon ci drapeau daaw bi. ki jëloon raaye bu mag raaye bi muy waa Dakar yi ak kamu taseel daan ko ak ka ca topp certainement généralement ñu boole le la région bi nga xam ne mooy accueillir kii bi ñooñu ñooy nekk chapeau wu poule yi léegi nag après ñu def tirage yi pour ñeneen loolu moom bu ñu paree ci fii ci la ñuy doog a jublu ci loolu loolu daal ci gàttal en attendant bu ngoonee bu ñu tasee fële aussi tamit lépp luy information bu ñu ko amee dinañ leen ko jébbal pour que ngeen xam ko nu mu gën a baaxee. voilà merci beaucoup. naa leen. affaire euh, test médical bi nu muy demee nii. bi euh, jaar na yoon pour ñun daal amul kenn ko am problème yëpp normal waaw. Euh, ñaari docteur ne ci biir oto bi professeur Ardo mu ngi ci kanam waaye professeur Raymond Diouf mu ngi ci ginnaaw yéen ñaar yëpp ay def liggéey bi wala nu ma demee noonu. équipe la équipe médicale commission la looloo tax. am na itam infirmier ñu bokk ci équipe bi ci commission bi am na yeneen médecin itam mais ñëpp ñëwuñu waaw. mbokki Leewtoo yéen a ko déggandoo professeur Ardo ngi nii tur bi rek la gën a ñu bëri nag dégg yóbbu naa la foofu yóbbu naa la Ardo yóbbu naa la Ardo waaye professeur Ardo ngi nii ñu ngi koy ñaanal jàmm mu gën fa yàgg ak mu wér lool nag moog professeur Raymond Diouf suma papa jooju ñu ngi leen di ziar baax jërë ngeen am na temps bu ñu leen may nag buñ ko wàññiwul on sera obligé ñu bëre ak li fi nekk. su boobaa dañ leen di recalé dootuñu bokk wala. bokkuñ bokk tournoi bi jeex dootuñu bokk parce que mel na ni dañ la passé visite te jàlloo waaw loolu la waaw. loolu leer na yàgg yaa ci dégg. Euh, li ma bëgg a wax mooy képp bu ma lay tan rafuyee euh, ñoom ne drapeau chef de l' état carrément ñoom naa andoona ye par poire fa manam ka jeg mayu ka andoona ye wiin we ga ɗeetanoyo xana ɗeet ndax o wo dof a faaxa ten taxu docteur ka ndef maana wo dole faxanga i ɗeet no poids fe ndax peese a wo wara waago maafrel no poids naga poids ɓetik njegu 66 kilo ten ref xar ɓen fa leng fo ɓeta fo leng xar ɓen tadik fo ɓeta fo leng temed kilo fo kilo temed fo ñaar fuk heure fu lawna ye no catégorie nene o maafir poids o fa xup gramme leng sax xan o leyele fog a jega waxtu fa fadanga koy to gariro nu mbaag mbog no no njom mene bo dimanche i ci'a den waxtu a yoqa quelques minutes we andoona yee poids den ga ngup a ƴufayo a mbaajikooyo a soɓanga to a sot axu garna i mbinong a soɓanga to sot e fogkatiron tournoi ne iyo a xoola xaj nu ni naan nene Malick Ngom na kata laytin ah, eh, i ɓaatan o lem to baax a va bien ah kii gars yi li ñuy def waa CNG war nañ bu dee 200 grammes sax ñu duñu ko may parce que affaire dafa métti da ngay wàññee wàññi seen balance yi et tamit moog balance yi dañoo wute da ngay wàññi ba pare dem ci balance yi peese wu def ay 75 ñëw fii peese wu mu ëpp. maanaam balance bi dafa wute ak bi ngeen peese wu yéen. voilà bala ñoom au moins sax ñu utiliser balance aiguë yi ñu mën a xam ne ni suñ poids dina ko mën a maintenir normal mais da ngay wàññi poids fële wu doon 75 boo ñëwee fii mu yokkaat mais au moins sax bu dul loolu bu ñu mënul tolérer un kilogramme ñu tolérer au moins cinq cent grammes wala quatre cent wala au moins trois cent grammes sax. yaay ban mbër. man Demba Sanoxo. Demba Sanoxo. Hmm.